yoona saar juróom benn ginnaaw loolu yeesu dafa jàll dexu galile maanaam dexu tiberiyaad mbooloo mu bari topp ci moom ndaxte gisoon nañu firnde yooyu mu wone ba mu wéralee jarag ya yéesu daldi yéeg ca kaw tund wa toog fa ak ay taalibeem fekk na boobu bésu jéggi ba di màggalu yawut ya jub bi yeesu xoolee gis mbooloo mu réy di ñëw ci moom mu ne filip fu nuy jële mburu mu nu leen mën a dundale bi muy wax loolu it da doon seetlu filip ndaxte xamoon na booba li mu nar a def filip ne ko peyug juróom ñetti weer sax bu ñu ko amoon du leen mën a doy ci mburu ba kenn ku nekk ci ñoom am ci dog wu ndaw keneen ca taalibe ya di andre mi bokk ak simon piyeer ndey ak baay ne ko am na fii ci mbooloo mi ab xale bu yor juróomi mburu ak ñaari jën waaye loolu lu muy jariñ mbooloo mu toll nii yeesu daldi ne taalibe ya na ñépp toog fekk ñax mu bari amoon ca barab ba noonu góor ñépp àgg suuf wara nañoo mat juróomi junni yéesu daldi jël mburu ya gërëm yàlla ba noppi séddale ko ña fa toogoon mu jox leen itam jën ba ñu doyal sëkk ba ñu lekkee ba regg yeesu ne taalibe ya dajale leen desitu mburu mi ba dara du ci réer ñu dajale ko daldi feesal fukki pañe ak ñaar ak desitu juróomi mburu yi ñu doon lekk bi nit ñi gisee firnde jooju yeesu wone ñu ne dëgg-dëgg kii moo yonent bi wara ñëw ci àddina yeesu gis ne dañu ko nara jëlsi fal ko buur mu bàyyi leen fa dellu moom rekk ca tund wa bi timis jotee taalibeem ya wàcc ca tefes ga dugg ci gaal di jàll dex gi jëm dëkku kaparnawum booba guddi woon na te yeesu agseegul ci ñoom dex gi yëngu na lool ndaxte da doon ngelaw ak doole bi ñu joowee lu war a tolloog juróom benn kilomètre ñu seen yéesu muy dox ci kaw dex gi jëm ci ñoom ñu daldi tiit waaye yéesu ne leen man la bu leen tiit noonu ñu nangu ko dugal ca gaal ga gaal ga daldi teer ca saasa ca fa ñu bëggoon a wàcc ca ëllëg sa mbooloo ma des ca geneen wàllu dex ga gis ne genn gaal ga fa nekkoon rekk dem na xam nañu ne yéesu bokk ko woon ak taalibe ya ndaxte ñoom rekk a àndoon waaye yeneen gaal yu jóge dëkku tiberiyaad ñëw teer ca wetu fa ñu lekke woon mburu ma gannaaw ba boroom ba sante yàlla ba noppi bi mbooloo ma gisee ne yéesu walla taalibe ya kenn nekkatu fa ñu dugg ca gaal yooyu dem seeti ko kaparnawum bi ñu fekkee yéesu ca geneen wàllu dex ga ñu ne ko kilifa gi kañ nga fi ñëw yéesu ne leen ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax firnde yi ngeen gis taxul ngeen may seet yéen a ngi may wër ndax mburu mi ngeen lekk ba suur bu leen liggéeyal ñam wu yàqu li gën mooy ñam wu sax abadan tey joxe dund gudul jeex ñam woowule doomu nit ki dina leen ko jox ndaxte moom la yàlla baay bi tànn mu nekk ndawam noonu ñu laaj ko ne lu ñu war a liggéey ngir matal jëf yi neex yàlla yeesu tontu leen ne jëf yi neex yàlla moo di gëm ki mu yónni ñu ne ko ban firnde nga nu mane woon ngir nu gëm la ban liggéey nga nar a def suñuy maam dunde nanu mànn ca màndiŋ ma ndaxte mbind mi nee na jox na leen ñu lekk ñam wu wàcce ca asamaan yéesu waxaat ne ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax du musaa moo leen jox ñam woowu wàcce ca asamaan sama baay ci boppam moo leen di jox ñam wu wóor wi wàcce ca asamaan ndaxte ñam wi yàlla di joxe mooy ñam wi wàcce ci asamaan tey jox àddina si dund ñu ne ko nag sang bi kon deenu faral di jox ci ñam woowee yéesu tontu leen ne man maay ñam wiy joxe dundi ku ñëw ci man doo xiif mukk te ku ma gëm doo mar waaye wax naa leen ko ba noppi gis ngeen ma te taxul ngeen gëm képp ku ma baay bi jox dina ñëw ci man te duma dàq mukk ki may fekk si ndaxte wàccewuma ci asamaan ngir def sama bëgg-bëgg waaye damay matal bëgg-bëgg ki ma yónni lii mooy bëgg-bëggu ki ma yónni bu ma ñàkk kenn ci ñi mu ma may te dafa bëgg it ma dekkal leen keroog bés bu mujj ba ndaxte lii mooy bëgg-bëggu baay bi képp ku gis doom ji te gëm ko am dund gu jeex te bés bu mujj ba dinaa ko dekkal yawut tàmbali di ñu romtoo yeesu ndaxte dafa ne maay wàcc ci asamaan ñu naan ndax kii du yeesu xam nañu ndeyam ak baayam kon nag lu tax léegi mu naan mi ngi jóge asamaan yéesu ne leen bàyyi leen seen ñurumtu bi kenn mënula ñëw ci man te baay bi ma yónni xiirtalu la ci te man dinaa la dekkal keroog bés bu mujj ba yeneent yi bind nañu kàddu gi yàlla dina leen jàngal ñoom ñépp kon nag ku déglu te nangu waxi baay bi dina ñëw ci man tekkiwul ne kenn mas naa gis baay bi ki jóge ci yàlla nga ko gis ci dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax ku gëm am nga dund gu dul jeex maay ñam wi joxe dund gi seeni maam lekk nañu mànn ca màndiŋ ma teewul dee nañu waaye ñam wi wàcc ci asamaan ku ko lekk doo dee man may ñam wiy dund te wàcc ci asamaan ku lekk ci ñam wii dinga dund ba faw te it ñam wi may joxe ji sama yaram la dama koy joxe ngir àddina mën a dund noonu yëwut ci werante werante bu tàng ci seen biir naan naka lanu waa ji mën a joxe yaramam ngir ñu lekk ko yeesu ne leen dëgg-dëgg maa ngi leen koy wax bu ngeen lekkul yaramu doomu nit ki te naanu leen deretam du ngeen am dund ci yéen ku lekk sama yaram te naan sama deret am nga dund gu jeex te dinaa la dekkal keroog bés bu mujj ba ndaxte sama yaram mooy ñam wu wóor wi te sama deret mooy naan gu wóor gi kiy lekk sama yaram tey naan sama deret dina sax ci man ma dëkk ci moom baay bi ma yónni mu ngi dund te maa ngi dund jaarale ko ci moom noonu itam ku may lekk dina dund jaarale ko ci man kon nag ñam wi wàcce ci asamaan a ngi noonu bokkul ak ñam wa seeni maam lekkoon te faatu ku lekk ñam wii may wax dinga dund ba faaw baat yooyu la yéesu wax bi mu doon jàngale ca jàngu ba ca kaparnayom bi ñu dégloo yéesu ba noppi taalibeem yu bari nee nañu njàngale mii de jafe na kan moo ko mën a déglu yéesu gis ne taalibeem yaa ngi doon ñurum tooloolu mu ne leen ndax li ma waxta leen jaaxal lan mooy am nag bu fekkee ne gis ngeen doomu nit ki dellu yéeg fa mu jëkkoon a nekk xelu yàlla mi moo joxe dund gi ñam wi jariñul dara kàddu yi ma leen wax ci xelum yàlla lanu jóge ñoo joxe dund gi waaye am na ci seen biir ñu ko gëmul ndaxte yéesu xamoon na ca njaalbeen ga ñan ñoo ko waroon a gëmadi ak kan moo ko waroon a wor mu dolli ca it ne looloo tax ma ni kenn mënula ñëw ci man te baay bi mayula nga agsi ci loolu taalibeem yu bari dëpp bañatee ànd ak moom yéesu daldi wax ak fukki taalibe yi ak ñaar ne leen mbaa bëgguleen dem yéen itam simon piyeer ne ko borom bi ci kan lañuy dem yaa kàddu yi joxe dund gu dul jeex léegi nun gëm nañu te xam nañu ne yaa di aji selli ji jóge ci yàlla yéesu daldi tontu ne leen xanaa duma leen tànn yéen fukk yi ak ñaar moona am na ci yéen koo xam ni seytaane la yuda mi doomu simon iskariyo la doon wax ndeke yuda li muy bokk lépp ci fukki taalibe yi ak ñaar moo ko naroon a wor